garde des Sceaux, monsieur le ministre du Travail, le ministre chargé des Droits sama collègue député yi maa ngi leen di nuyu di nuyu ñi ngeen àndal ñëpp madame la ministre garde des Sceaux bisu tey bii journée historique la mooy journée boo xam ni le 6 bi nga xamante ni mooy mars 2024 mooy bis bi nga xamante ni ci la Sénégal di booloowaat ci la Sénégal di dajawaat ci la Sénégal di tàmbaliwaat lu bees kon suur na historique la pour man pour le peuple Sénégal di la remercier bu baax sa taxawaay parce que bokkoon nañ fii assemblée nationale di sant askan wi nga xam ñoo tànn indi ma fii te askan woowu mooy waat Touba ak département Mbacké di sant xalifa de Mouride di ko ñaal mu yàggatoo ak mboolem kilifa diine yi madame la ministre loi bii nga xamante ni moom nga indi fii tam nekk loi boo xam dafa jóge ci gouvernement bi muy projet de loi pour amnistie man Cheikh du Bara Dolly njiitul parti politique jiitu coalition nekkal ci askan wi nekkoon candidat nekk doomu daara nekk chef lycée dinaa woote projet de bi ngir plus de leçon man sëriñ bi nee na ma fépp fu waay man di nekk la ma la sant mooy jàmm loolu laa jox ndigal ndigal boobu noonu moo tax sëriñ Basiiru Abdou Khadre jox ma kaale gii moom laa yore tey kaale gii day firneel ni sëriñ bi jàmm la bëgg moo ma ko jox ni ma nanga ko ràngoo xam ni mission bi ngay dox mission bu noble la te am nga suñu ndigal kon nag man dinaa ko watee maa ngi sàpp sama mbokk yi ñu wate ko parce lii président Laye moo ko indi mais du yëfi Macky Sall du yëfi Ousmane Sonko du yëfi Cheikh Abdou Badoli mais yëfi peuple bi la. parce que jàpp naa ni am réew bu tolloo fenn fi ñun ñëpp war nañoo mën a maase fàtte jéggalante baalonte dem ci kanam parce que tant ñu ngi wax lu ñaaw tant que ñu ngi wax lu bon tant que ñu ngi déglu ay nit yoo xamante ni tant que ay mi nga am ñu ciy dund di dem bitim réew day la xaalis di saaga askan wi nekk ci palato yi fexe ba jàmm du am tant que ñu ngi noonu du ñu wate loi te man d'accord naa pour ñu wat loi bi pour ñaar raison Ousmane Sonko sama xarit la sama doomu ndey la tey kaso bee mu nekk yéenewuma ko te luwaay bu jàllee dana génn dem fekk ak njabootam parce que ku watuwul loi bi bañ Ousmane Sonko génn si kaso bi kooku si asimi dinaa wat loi di wax sama benn boo ko yaakaar Macky fukki at ñaar lu nekk defal na leen ko lu nekk jinne leen ko def na si réew mi lu nekk bu desee ay weer mu bëgg a dem dañ ko war a bokk dañ ko war a waxtaanee dañ ko war a séddoo du nekk ba mbir di bëgg a jeex ngay trahir ña nga àndaloon di wàcc di dem feneen koo ko def jaam nga te dañ war a trahir comme ñuy trahir jaam d'accorduma aussi ñi nga xam dañ fay nekkoon fukki at ñaar ànd ak Macky Sall tey ñu jóge ci Macky Sall ngir seen intérêt bopp ñi sàcc suufu dëkk bi ñii sàcc xaalisu réew mi tey ñu nekk ay candidat bëgg a opposition bi bëgg leen traiter ci prison loolu d'accorduma ci Sénégal pour tous Sénégal pour tout Sénégal ci kanam yàpp naa ne réew mi c'est pas la première fois loi amnistie am ci réew mi bii mooy fukkeelu loi amnistie boo xamante ne am na ci réew mi président Ablaye Wade tey bu ba nee nekk président de la ba def mission def ñaari mandat dañ ko amnistie moo tax mu nekk ko te tooñu toon ñun amnistie nit taxul yow yaa tooñ képp koo xamante ni am na si na la nga récolte amnistie boobu defar réew mi day la réew mi parce que ñun président Ablaye Wade mooy suñu mentor mooy suñu royukaay li mu mooy bëgg réew bëgg sa bopp benn pression bu ñuy dund man li ma ñor moo réew mi damaa gis sama parti bopp dëkk képp koo xamante ñëw nga Touba bëgg Touba bëgg département bi boo wuxtak man doo ko gagné loolu moom mooy li wér monsieur le madame le ministre boo xoolee loi amnistie li ma ko waxee amnistie loi amnistie boo xamante ni bi ñu koy def Abdou Diouf ko def booba rebelle yi nga xamante ñoo nekkoon Casamance amul sax jugement pour jàmm la woon te rebelle yooyu am na si ay jamono yoo xamante ni juróom benn fukki nit faat nañ si benn suur loolu lépp ñu mun ko pour tàpp xol dajale boole sàmm kon tey jii képp koo xam ne watu woo loi bi da ngaa trahir peuple bi da ngaa trahir Ousmane Sonko da ngaa trahir Macky Sall da ngaa trahir Sénégal souveraineté nga jox salaamaaleykum wa rahmatulah. merci cher collègue.